ñëwuma mais nag comme on di il n'est jamais trop tard pour bien faire euh, macha allah egsi naa maa ngi leen di gërëm te maa ngi doon suivre nag émission bi tous les jours à tout moment te wax fa dëgg yàlla je crois que maam Biram maa ngi ko koy wax keroog nee naa ko motal ngeen lépp voilà c'est-à-dire que fii personne n'est indispensable mm-hmm. Mm-hmm. voilà mm-hmm. voilà kuñ fi indi teg rek motal la nga sa place quoi wala merci beaucoup Pape Sané alors ñu ñaanal sa waajur googu yàlla na ko yàlla yërëm te xaree ko àjjana eh, yàlla may la xolu muñ damay faral di wax ne la waajur bu amee sax eh, ñaari téeméeri at Mm-hmm. bu la dëddoo rek day mel ni bëñ bu génn ci sa gémmiñ donc doonu la mel donc massa mm-hmm. ñu ngi koy ñaan yàlla xaree ko àjjana coro amin yaa rabbi amin donc comme ni ko euh, Pape Makhtar waxee léegi euh, ñuy nuyu euh, de passage ki nga xam ne moom moo di Pape Sane di la dalal bu a baax comme ni ko maam Biram ak Pape Makhtar waxee léegi ci doomu daara ak li muy représenté macha allah te Cheikh baar ku gis xam-xam bi muy waxee ak yeneen ak yeneen da ngay xam ne macha allah am na lu mu lu mu xam daal toogaale ci ba tax na ci loolu laa koy ñëw di ko laaj digganteem ak président Macky Sall. ndax euh, euh, euh, lii di patriotisme tey jii li nga yaakaar ci sam réew te président Macky Sall matalew ko moom moo tax tey jii nga am ñàkk gëm goo ko ñàkk gëm wala ci débutam bi muy politique bi muy ñëw ci nguur gi te mu ne ñi nga xam ne tey ñoom ñooy sëriñ si ay citoyen ordinaire lañ ndax sëriñ su bari bari dañ cee jaaree mere ko sax ba politique am neexu leen mm-hmm. non maanaam Macky Sall mënu ma lii moom ma neex ci moom lii moo ma naqari ci moom man am naa problème mag sàll Sall donc donte mais problème ak système laa am. Mm. su ma waxee problème ak système laa am mooy réew mi ni ñu ko tëggee ni ñu tëggee république bi ni ñu tëggee loi yi ak ni ñu koy doxalee ak ñi ko yor ni ñuy doxee ak ñi ñu koy ñi ñu yor ni ñuy doxaleek ñoom loolu man moo ma neexut loolu nag Macky yor ko. ak keneen yor ko ku ku ku bëgg a yor it boo ma boo ma ne woon bu ma ko yoree ni ko Macky yore laa ko yoree ma def ma xool la bët bi may xool Macky waaw Macky nag am nañ ay problème personnel yoo xam ne waxuma problème personnel mais yoo xam ne ay fee la yoo xam ne moo ko defal boppam. mooy yan. non comme si que ni nga mën a toogee euh, ne waaw léegi maanaam xam nga Macky moom man bu ma léeg-léeg dama dul xam maanaam ban xeetu sax nit laa ko mën a catégoriser bu ma koy jàngat bu ma nekkoon ab psychologue. parce que Macky dafay ñëw ne constitution bii constitution bii mhm. mayuma ma def deuxième trois trois mandats xam nga foofu waxutum xelam mhm. constitution bi la wax mhm. ñu dem ba ca yàgg mu ni nekkut ci constitution bi xam nga muy ñaari ñaari mbir yu jaxasoo ñu dem ba mu yàgg mu ne wax ji samam xel laa doon wax léegi sama xel it li mu doon xalaat léegi xalaatatu ko maa ngi xalaataat leneen nga xam ne maanaam boo ko toppee yow fooy taxaw nga dul xam wax ju sew la nag li ma lay wax dana mi ngi ci constitution bi ba mu yàgg mu ne nikku ca woon xam nga mi ngi ci ba yàgg nga ne nikku ci day mel ne waaj a ñëwoon Espagne ca euh, kër ga ñëw ne salaamaaleykum ñu toog mu ne ñu ne ko sant wa mu ne ngom toog tuuti ne lu ma wax ñu ne ngom laa wax ñu ne ko waa mu ne damaa juum saw la waaw xam nga loolu léegi nu mu sant maanaam saw sant bopp nga bëgg ne ngom ba mu yàgg nga jéggi-jéggi ne léegi leen ngom ji léegi saw la <laughs> maanaam da xam ne yaa ngi mm-hmm. mais chef d'état bu toog ne constitution bii réglé nañ ko depuis 2001 constitution 2001 moo réglé woon trois mandats yi. kooku bu leen ci wax ak man daan ne li am te am mooy constitution bi moom muyut nit mu def ñaari mandat di laajaat beneen. Mm-hmm. ba mu yàgg mu ne loolu nekkut ci constitution bi xam nga muy jëlee na la ci point bi mu la bàyyi woon indiwaat la ci nekku ci. Mm-hmm. léegi nga ne ko li nga jot a wax mu ne samam xel a ko waxoon. Mm-hmm. maanaam samay waxi bopp la woon. te bi mu koy wax pourtant la waxoon waxuñu woon ñu dem ba mu yàgg mu a léegi sama waxi bopp jooju ma waxoon sax far na mujj soppi ko waat ni constitution bi soppi ko moom itam léegi looy jàpp jan waxam ngay jàpp maanaam waa ji la ne sa saw laa sant ba yàgg mu ne la ngom wax léegi waxi Macky boo ci bëggoon a jàpp nu fooy jàpp eh, loolu benn problème la beneen bi ci mooy ñun dañoo am jafe-jafe ak nguur gis nga ñoom Mambay Niang ak Pape Malick nduur ak gars yi yëpp li leen jàpp mooy abus de pouvoir abi ci Antoine ak ñoom ñëpp mooy dund yaakaaroon ne doo ma sa doon dara ci àdduna far doon ko loolu da maanaam nit ku ay nit ku sëñ Touba day wax ne Cheikhu Tidiane sax wax na ko. nit am dafay kawe mooy li ñu wax ambition maanaam may moytoo ma nit ku. gis naa Farba Ngom barki bi ci télé ne dafa plafonné gis nga nit bu plafonné nag biteel bu fees day tuuroo fii ne ñoom dañuy tuuroo xam nga Pape Malick Ndour gis naa Facebook bu mu bindoon ne ñaan leen ñaanal leen ma Macky saala falu ndax ma am jabar waaw waaw maanaam nga xam ne nguurug Macky Sall li muy réy réy jabar nga ci doon xaar nga am ci jabar am ci kër ba doon ci ministre fees nga bay papa Malick Ndour a ko waxoon. ñaanal leen ma Macky falu ndax ma man a am jabar. te am nga jabar am ci kër ba fal ci dégg monsieur le ministre. kooku dafa plafonné. léegi nag plafonné googu daal dal Macky dal la ñoom ñëpp dégg nga. Macky dafa plafonné ci ban cadre. ci wàllu ci wàllu ambition. gis nga yàlla. kon yoonam mosu ci sóoraale que ni mën nga yàlla bi mu ne. allahu yàlla nga xam ne foofu yàlla la wooyee boppam daf ne alxaaliq albaari almusawiru lahu asmaul husna bi mu ne man la yàlla rek xaalis la ci teg mooy may aji bind ci nit mënu ko albaar yi maay fentkat bi al musawiru maa leen melal lahu asmaul husna ñeel na kooku leen bind melal leen te fent leen tur yu kawe yu sell yi dégg waaye bi mu ne almaliku nga xam ne maanaam buur la wooyee boppam xam nga lu mu ci teg alxudus ku sell xam nga fu mu jëm ci jabbaar la bëgg a wooyee boppam ak mutakabir maay ko ngand ki te rëy waa xoola fi yàlla jaar doog laa wax maa ngand pour pour pour rëy bañ a nekk bañ a nekk bañ a nekk aw xas ci moom dafa ne alxaalix daf ne almaliku alxudus la ci teg maay ko sell ki assalaam maay borom jàmm ji almuhaymin maay ki nga xam ne damaa am information ci lépp yu biir yeeg yu bitti yeeg maa fuglu al alxasiis maay ki nga xam ne jëlkatu décision laa te décision bi may jël xàmmeewuma ci Marème xàmmeewuma ci Amadou xàmmeewuma ci Mansour Faye xàmmeewuma ci ñu ne ma Pape Ndiaye bu wal fajiri kat juum na booy jël décision ci kawam bu doon Mansour Faye noonu laa koy jëlee man yàlla maay ki nga xam ne décision dama koy jël ni ma ko war a jëlee alxasis doog na nag ma kon nag comme maa sell maa am jàmm maa am information yi te maay jël dem décision yu maandu yi kon nag aljabaar almutakabir léegi nag ñun nag suñ buur yi fii Macky Sall ñëpp dañuy ñëw ne al al maliku ñu ne waaw rek ñu ne al al al jabaarul mutakabir maanaam bëgg a tëb xudduus bëgg a tëb sell. Uh-huh. bëgg tëb maandu bëgg tëb transparence bëgg a tëb yépp ne la may buur bi nga ne ko waaw rek mu ne màngan na maa màgg nga xam ne màggaayam rek la lay tegal loolooy waral population bi xool nguur gi moom day yëg ne widd am na kii daal mooy buur bi waaye nag yii mu bëgg a teg ci sama kawit daa yomb état bi daal demeewul noonu bu ko defee mooy tax koo ñu ne offense chef d'état parce que yàlla buur boo xam ne daa maandu ci sa kanam am jàmm ci sa kanam sell ci sa kanam di jël décision yoo xam ne wóor na leen xoolu ci ma sàmba xoolu ci ma demba dégg nga ba noppi ëpp la information yi biir ëpp la information yi bitti kooku bu dee laa may mutakabir doo ko offensé moo tax yàlla offense chef de offense chef d'état moom da ko dégg waaye offense yàlla moom jëru ko ndax boo ko offensé woon sax mu baal la oh. waaye buur boo xam ne moom mutakabir moo la kooku offense rek ngay mel ne moom moo moo manqué ci dëkk bi oh. dégg nga bu sukkar manqué doo ko yëg bu sécurité manqué doo ko yëg waaye bu respect manqué ci sa jëmm moom lu mu tuut tuut nga wëri borom nag kaay dañ maa offensé dégg nga xawaan branco sax xaw ma xawaan la xaw ma dañ la da ko offensé du dugg nga xam ne ñoom dundum nit ñi respect bi leen nit ñi war a respecté la ñuy njëkk xool loolu mooy jafe-jafe boo xam ne dafa nekk ci nguur ni ñu ko tëggee fii mooy li ma la wax république bi ñu amal problème am na ci loo xam alxuraan sax ya da ko wax yonante bi sallallahu alayhi fa bi maa rahmat walaw kunta fassan xalisal qalbi lan faddu min xawlika yàlla dafa wax yonante bi Moustapha laa wax de nga xam ne yon ak yonant la ko jox jox ko àjjana jox ko gindi jox ko yërbane jox ko lépp da cee boole na ko bis boo fasee sa kanam gii na muñu gaa yi bu ñuy daw duñ duñ jël seeni i dàll maanaam pëccatiku la ñuy def hmm. lan faddu dañuy pëccatiku bu ñuy dem yàlla comme ndegam yonent bi la mën a yónni ne ko dee fecc sa kanam gi tey ree tey may nit ñi tuuti jàmm soo ko difut ne yonent bi da koo menacé de ne ko bis boo fasee sa kanam gi nag ne muññu di def ni waa ji ci mermos di def gars yi bu ñuy départ duñ duñ duñ jël seeni i dàll dégg nga yonent bi mel ne ku ko laaj ne ko léegi kon nan laay def mu ne ko fa'fu anhum wastaghfir lahum dee leen jéggalul te di leen jéggal soo toogoon sax dégg sa institution yi nga yor benn ci ñoom bëgg a dal ci seen i kaw wastaghfir lahum na nga leen jéggalul waaye yow itam na nga leen di jéggal wasaawirhum fil amri te ngay jëf te ngay te ngay diisoo ak ñoom ci mbir yi bul jékki-jékki nekk benn buur boo xam ne da ngay xëy ñu barikaatire kër Ousmane Sonko ngay laaj ban loi moo moo barikaatire fii ak ban sañ-sañ lañ ko barikaatire ñu ne la non loolu ordre la yàlla nee na yonant bi bul di jëfandikoo ay ordre yu kenn xamut ci kaw sa ñun ñii boo ko defee ñu mere la. dégg nga wa saawirhum fil amri dégg nga waaye nag fa isaa xasamta bu jël bu jël bu fekkee nag dem ngeen ba diisoo nag ba nga xam ne yaa war a jël décision nag na nga jël décision bi fa tawakkal alallaahi nag nga nga wéeru ci yàlla li ma la wax nii maanaam yàlla yonant yàlla muhammad sa alayhi wa sallam la ko wax ne ko bis boo fi nekkee waajoo xam ne da fas sa kanam gi ni muñu doo baal kenn te koo dégg ñu koy duma doo ko baalulu dégg gaa yi daañ la mere daañ la bay yonent bi ne ko nu may def mu ne ko feccil sa kanam tey jéggalaate te booy bëgg a def dara ci kaw nit ñi na leer ci seen bopp nga teg constitution bi wala nga diisoo ceeg ñoom ne lii may def fii laa ko teg ba mu leer ci seen bopp su ci desee nag jël dogal jëlal dogal nag te wakkilu ci suñu borom subhaanahu wa taala loolu damaa jël politiciens yi waaye comme yonent yàlla Muhammad la yàlla mën a yónni ci alxuraan jii mu dugal ci lu koy wan ne ko am na nooy doxale gars yi duñ la faale gars yi ni ñuy moo tax man ku mel ne man mënuma leen a mënuma leen a ku mel na man man loolooy sama problème ak ñoom. waaw mooy mbir yi su kër bu manqué procureur du ko wax kenn du ko wax dégg nga ma procureur bi génn na fii di wax dégg nga ma nee na wala ñu bàyyi ba ba mu nekk. question waaw waaw mais sëñ Bara ah. mhm. ki mën a taxaw yow li ngay wax yépp ay xuddoos ak yooyu yëpp nga mën a jaar ba mën a ànd ak yërmande geeg yëpp léegi nag jëmmi buur geeg doole ji yëpp soog a ñëw ab jaar jaar la. ni ko suñu teg teglee du juum ci dara. Mm. waaye ki mën a taxaw ne salaatu ala fatiha moom xamul suñu borom xamul ko léegi loolu ndax jool bi mën nga koo jot ci ku mel noonu. xam nga damay wax man toujours ne bu ab yonant amutoon bu ak yonant amutoon ci kaw suuf. waaw ak président du am. maanaam yonant yi dañoo ñëw ba jeex ñu yëg ne li personnalité bi yonant di am ak ni muy feese place ak ni muy mel. Mm. loolu moom nekkut widd buñ mën a bàyyi. ñu tabax xilaafa. tubaab yi dem këf ci ñun xool ni ñu ko tëralee ñu këf ko dem tap tëgg ko tudde ko ay loi muy diine ji tudde institution bi président de la république président bu matee président rek jikkoom ak jikko yonent du soree bu fekkee aw askan nangu nañ te askan damay wax toujours ne su dul woon ak république Macky Sall du ma jiite démocratie dong may Macky Sall di ma jiite du ma jiite ak julli du nekk sama chef de quartier du ma du ma jiite fen gënuma maguma ëppuma dara ba may jiite waaye démocratie ko may loolu Antoine Ndione su dul woon ak démocratie du ma jox benn ordre Mame Mbaye Niang bu dul woon démocratie du ma jaar ci tëli ñi di ma wàccee naan ko demal donc kon man bu démocratie nee jël Macky Sall teg ko sama kanam man man de war na maa fonk démocratie waaye moom war na koo fonk ndax xam naa ne bu fekkoon dañ ne alal mooy tax nit falu Macky du falu buñ ne woon cib juddu lañ koy xool du ko xool cib juddu suñ ne woon ci xeex ba gañe duñ ko xeex duñ ko xool cib xeex ba du xam naa ne du gañe kenn ndax gaaw naa daw lool bay nag du <coughs> du gañe maanaam affaire gañe xeex nii nekk yi gañe ko du ko doon amul ci maanaam bu doon ne am njàng wala xel mu yaatu mu ñu koy lijjanteet mm. lu xel naa ci xel naan ko ëpp tum xel nit ñi ba mën a toog fii di ñu jiite mm. dafa nekk ci juddu dëkk boo xam ne dañoo juddu ñu ne population bépp a yem carte d'identité ngeen yor ku mën a convaincre sénégalais yi bañ wateel la ñëwal jiite yàlla may ko mu mën a dem ci sénégalais yi waxtaan ak ñoom ci njëkk ak teraanga ba convaincre leen ñu fal ko mu toog jiite leen loolu dong ci la mën a jaar ba nekk président léegi yow kon point bu njëkk bi nga wax doguma la ne da mënta xam fan nga koy teg ndax dana nekkul ci constitution bi ba yàgg mënta nekk na ci maanaam ni nga ko waxee daal xam naa ne moom ku la yéem la hmm. ci mënoo xam foo koy natt lan moo tax mooy yaakaar ne dem na ne nekkul ci constitution maanaam moom d'accord na ni mënta am troisième candidature cest dire mënta xam nga ñoom dañuy wax naan ay candidature ak mandat yooyu yëpp bokkul wax la yoo xam ne ni en réalité euh, du dara lu dul ñoom ñu koy wax ci ay caaxaan képp lañ nekk. Hmm. parce que candidat maanaam mandat bala nga ko day fekk nga candidaté dem bokk ñu fal la nga kii mais nag politiciens ñoom seen i wax duggee mais moom ci boppam ne woon na mënta bokk ba yàgg m ne mën na ba ko ci livre am ba mu koy wax wóoru na ko ni lii ci boppam mënatul a nekk ci moom lan moo tax nga yaakaar ne mu dem ba ci biir bëgg a defaat volte face eh, ci loolu mu waxoon yëpp donte ñu bari ñi ngi naan nañ ko xaar mu wax waaye man damay jàpp ne wax hmm. parce que meeting bii ñu def ci Pikine ña ñëpp bu ñu waxee bu ci kenn waxoon rek Macky Sall la wax Ismaïla Madior Fall dégg nga Farba Ngom ak ñooñu fa daje woon euh, ñu jeex xam naa ku leen si ministre yu bëree bëri bëri mais dama jàpp ne kon moom wax ne candidat la parce que ñooñu ñoo fa toog waxal ko est-ce que jëmmi boppam ji jar ñu koy xaar mu wax lan moo tax yow nga jàpp ne dem na ba ci biir mu bëgg a tourné waat la mu waxoon sànni ko fële dëggal boppam pour dem ci troisième candidat parce que loolu mooy li ne ci xolam loolu loolu yow da ngaa dugg sama xel bi waaw mooy li ma bëggoon a wax mooy démocratie moom man bu ma ko waree respecté mooy li ñoom li ñuy wax naan force reste à la kuy respecté démocratie rek Macky Sall la ci war a jiitu kuy respecté démocratie Antoine a ci war a parce que kii xam na ko man xam naa xombal la dëkk dëkk xombal bu doon juddu baam njàng baa baa ay pexe ah doo toog fii mu naan la doo génn sa kër ak da nga dugg sa kër kon démocratie moo mën a jël doole ju toll noonu jox ko Antoine li ma bëgg a wax foofu mooy ay nit bu fekkente ne dañoo mën a jël seen maanaam araamal ci seen bopp sax wut ngànnaay ne la kat ngànnaay yow rek lañ may nga jënd ko xaraamal seen bopp denc ngànnaay ne la ngànnaay yow dong lañ may nga di ko denc xaraamal ci seen bopp jël décret xaraamal ci seen bopp denc xaalisu réew mi xaraamal ci seen bopp lépp jël ko ne la mbooleem luy doole ak luy ordre ak luy violence bu légale lépp jox nan la ba noppi nag dolli ci nag bindal la article quatre-vingt ne la dañ lay màggal loolu bu la ko aw askan joxe boo geesuwaatee xooloo leen bëtub yërmande rek dooni yërëmuñ xoolal ba xam yërëm na askan wi mu déet boo leen xoolut bu fekkee yërëm na leen war na noo yërëm bu nu yërëmut yërmande dong ndax nit moom sëñ bi doole man xam nga Macky Sall dafa am loo xam ne il faut ñu xool ko. man Assane Diouf rek laay xool Assane Diouf. Assane Diouf Assane Diouf maanaam da doon tukki di da doon tukki. Mm-hmm. ñu jëlee ko ci tukki ba. mu yor ñaari doom ñu teqale ko ki doomam mu am jabar ñu teqale ko ak jabaram jëli ko indi ko ci réew mi réew mi nga xam ne ñun dañoo yaakaar ne ku fi nekk ko torox nga ñu indi leen ci réew mi de bàyyi leen fi. lu mu def bañ def ko loolu. déet taxawal loolu laa bëgg ñëw réew mi ñu indi la ci réew mi mm-hmm. xool la ba yàgg doyatu ñëw dajji sa buntu néeg jël la yóbbu ci biir kaso tëj la fa damm sa tànk dégg lépp ñu teg ko benn nit ñu ne ko lum la def mu ne damaa saaga saaga quoi. Uh-huh. dëgg la aw yoo mën naa laa mat waaye nag yoo jërut fetal. waaye jar na tàccu. yoo waaw ma nga yem ci tàccu waaye lii lépp nga teg ko nit. c'est parce que mooy faatu yow. c'est parce que c'est parce que daf maa saaga quoi. mais mais Cheikh Bara. Cheikh Bara parce que daf maa saaga maanaam loolu. man mënuma koo natt. di ko nattaleeg yërmande. léegi foofu li ma bëggoon a wax mooy. ñoom bu fekkee am na kuy respecter démocratie ñoom ñoo war a respecter démocratie parce que démocratie moom ci lañ bénéficier wu ñoom ba doon liñ doon tey. léegi nee ma lu tax mu ne wala ñoom dañoo ñëw ci troisième mandat bi waaw mu ba yàgg génnaat ci loolu. loolu comme ni nga waxee ne moom new na néewul ci question bi waaye yàgg mu ne nekk na ci maanaam yow bi ngay bi ngay introduire di tontu ci question bi xaw ma ko la ko ci la waaw moom xam nga dafa man loolu yéem na ma waaw waaye dafa am lu am solo sax lu mat alerte waaw Babacar Mbuub bu ànd sàmm jikko yi maa ngi koy ziare moom laa dégg mu ne mu wax wax boobu depuis keroog ba léegi daf may travailler mooy Macky Sall daf ñoo waxoon cinq laay def bi mu waxee cinq ans laay def ñu dox dox ba mu yàgg mu jékki-jékki na léegi kat mujj ma def cinq sept laay def xam nga kon maanaam wax mu dañ am na benn foofu. Mm-hmm. Mm-hmm. da ci ci même weer woowu la ñu war a annoncé ab référendum wax ñu ay seize points comme que dañoo nax ci weer wi nag ba ñoo naxaat naan waaw ni nangam nangam nit ñi gëmuñ ko mu jël otoom dem ba ca sëñ Sidi Maxtaar toog ak moom keroog ba mu toogee moom waxu ko ne ko saa waxi bopp laa lay wax li constitution bi wax la ko wax. Mm-hmm. ñëpp a koy dégg. dafa am lu amoon ci réew mi fukki nit ak ñett dee ci ba tax mere ki fi nekkoon teggi ko fi teg ma fi loola laay dox pour dootu amati kenn dootu dee ci mbirum troisième mandat daldi ne waaw léegi kon loolu laa bëgg nga yëg ko am na ñuy yàq sama der di wax naan waaw dafa bëgg a def troisième mandat dafa bëgg def nangam waaye loolu doo ko mës a dégg ndax loolu nekkul ci mbir mii ne ko góor jigéen nekku ci nangam nekku ci wax ko seize points yëpp sëñ Sidi Muxtaar rek doy na seere oh. nga jóge fa dem Tiwaawan jóge fa dem ci Seex Maay jóge fa dem Njaasaan jóge fa dem Laayeen jël këru kilifa diine yépp jël leen garanti ci ne li ngay def góor jigéen nekku ci troisième mandat nekku ci sëriñ si garanti ko ñu dox ba mu yàgg Macky sàll xëy xëy xëy léegi la mu waxante woon ak sëriñ si la mu waxante woon ak sénégalais te sëriñ si témoin woon ko mu bëgg cee trahir ci loolu la nekk donte trahir bi moom gis na ci moom ba ñemee gu ko wax waaye dafa bëgg a trahir waaye nag li Babacar Mbuub wax moo am solo mooy daa bëgg a askan wi ba noppi bëgg sëriñ si noppi daa bëgg trahir ba noppi bëgg nag sëriñ si témoin bi mu leen jëloon ñoom nañ bàyyi mu jàll maag yow danoo ànd dem ci maam biram di ko leb ma lay leb wóolu woo ma waaye maam biram ñu ànd dem ci maam biram maam biram témoin nga nga lebal ma ñu dem ba ci biir nangu nanguwuma laa fay ba noppi bëgg maam biram kuul léegi bu ñu kuulee loolu lan lay doon complice sëriñ si bu ñu noppee ay complice la ñuy nekk. Mhm. te nag. su ma noppee kay day mel ne nag maa ñamal. voilà Macky Sall nag defe na ne defe na ne fii ne ay pexeem ak ay dugal génneem man naa fexe ba sëriñ si maanaam maandu ci troisième mandat bi noppi ci mu dem su loolu amee sëriñ si mu demoon toog ak ñoom ni leen kat nii lay demee te demeewu ni askan wi gisoon leen ak seen sëriñam ne buy wax dëgg rek ci sëñ ba la jëm waaye bu doon safaana du ko wax sëñ bi. sëriñ boobu nag maanaam ah Macky de waxagut waaye jàpp naa ne bo moom bu fekkee daa bëgg a def ay man-man ba nga noppi bu noppi am na catastrophe parce que alquran ne woon na euh, yaa nu lazina amanu kunu xawaamina bil qisti suhadaa lillah dénk naa leen ngeen maandu ci seede tey seede te yàlla tax la alquran dénk dénk ci nit xam nga loolu dong doyoon na nga ne ko waaw kon baax na bu may seede danaa seede te yàlla tax waaye pour yàlla bëgg mu gën laa lee dana la wala wax laa anfusukum bu fekkee ci sa jëmmi bopp ji ci la seede bi jëm na nga wax dëgg te yàlla tax nga ne kon baax na xam nga nit moom boppam mu ne ko wabil waalidayni ak sa ñaari way jur sa ñaar sa yaay ak sa baay bu fekkonte ne dañoo dañoo taxaw nga war a yi dëgg goo xam ne arrangé wut sa baay arrangé wut sa yaay nee na waxal dëgg rek te yàlla tax loolu doyatul mu ne wala ak say jege ñaale doom jarbaat nijaay dégg nga bàjjan dëkkandoo ñëpp a ci biir mu ne ñii ñëpp buñ taxawoon alxuraan a ko wax de ci sooratu nisaa su ko su ñii ñëpp buñ taxawoon nga war a seede dëgg te fekk ne arrangé wut ñii nga xam ne say jege ñaale lañ yow seedal dëgg gi rek te yàlla tax dégg nga mu ne in yakun yan bu fekkonte ne sax koo xam ne dafa am xaalis bu dul jeex boole naa ko ci biir xanaa boroom xaalis rek mu ne aw faqiiram wala waaju ñàkk a ñàkk a ñàkk sax ñàkkam googu bu mu tax nga seede loo xam ne du dëgg mu ne wama sahit naa illaa bi ma alim naa bul hmm. seede loo xamut waaye loo xam ba cay seede nag seedeel te yàlla tax léegi nag nit ki saa bu demee ba war a seede te seedewut su boobaa alxuraan da ko dafa jiitu Macky Sall ci ci ci lii te nag seede li muy tollool ci lislaam xam nga lu mu doona droit civique fii ne nii nit bu ñu nee bu lislaam ne matoob seede boo nee weer wi feeñ na kenn du la gëm boo ne woon diw daa wàcc jabaram yaa ko témoin du dëgg kenn nangu mun bu ñu doon mayee jabarit yow boo toogoon kenn du la témoin yow may mayee jabarit yow yow yow amatoo maanaam amoo droit civique mënoo wate loolu mooy lay tollool te it ku mat ku matut seede matoo imaam te boo matut imaam loo matut sëriñ moo tax gaal googu jàng aaya yi ma jàng nii jàngaluma ko sëriñ si ndax ñoo ma ko jàngal ñoom waaye dama koo jàngal ma ki Sall mi defe ne mën naa duut duutee ka muusa ka waanee ka lijjantee ka ko ka wàcce ka loxosa ka def yi mbir ba teg fii ab troisième mandat ba noppi sëriñ yi réew mi mu waroon ne leen kat troisième mandat ku ci nekk mu toog ak yow ne la troisième mandat bañ mu am moo tax may watelu lii def ci 16 milliards oh. sëriñ soosa mën naa fexe ba noppi ci mbir mi yaakaaruma ko yaakaaruma ndax laaye yi mi ngi taxaw ci seen kanam. waaw mm-hmm. euh, euh, Cheikh Bara ñu dugg ci beneen poñ sax. Ah. muy mbiru euh, diggante Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang sànq yaa ngi koy junj bi nga déggee ñu ne <coughs> dogal bi root na ñaari weeru kaso lañ koy daan yoo xam ne sax du ko tëdd ak ñaari téeméeri million yoo xam ne war na ko joxe ndàmpaay Mame Mbaye Niang. da nga ne waa da nga ne alhamdulilah finalement la ñu doon xalaat amul wala doyaloo ci wala liñ teg nekk na loo xam ne da nga bokk si ñi koy naqaru. waaw loolu keroog bi ma noppee sama benn xarit daf may tooñ ne àtte bi de jeex na waa kër Macky Sall ñu ngi kontaan kontaan lu waa kër Sonko ñu ngi mer merlu loolu mooy résultat àtte bi te daa mel ni wax na dëgg ndax waa kër xëy na am na lu leen naqari waaye kontaan nañ ndax jàppoon nañ ne bis boobu danañ dégg ñu naan Sonko du mën a bokk te bokk na Macky Sall it waa këram ñi kontaan kontaanlu nañ waaye buñ sañoon it seen i nopp Sonko du mën a bokk kon enjeu wu àtte boobu doonut lu dul euh, doon fexe ko Macky Sall fexe éliminer Sonko ci candidature am te loolu appel bi mamba Mambay Niang def ak conférence de presse bi mu def démb daf ko wane parce que yi dafa mës a wax ne man de lii may nekk maak Ousmane Sonko laafe sama honneur laa ci jublu ak teggi tuuma rek leena moo ko tax a jóg booy ne ah Sonko ne déedéet. sama candidature lañ bëgg a xañ waaye ñoom teggi taxu leen a jóg bu doon teggi tuuma rek mu sempal waa réew mi gëm Sonko taxaw di ànd ak moom di xeex Mame Mbaye wote ñaari conférence de presse wax booy ne leen lii ngeen di xeex ku ci dee dangay ngay perte ndax ki ngeen di xeexal da leen di nax da leen di nax waaye wane ne ne ñi dee pertuñ ndax xeexal nañ seen réew ba dee ci wane ne ne moom moo doon nax nit ñi waaye Sonko naxut nit ñi ndax mënuma nangu nga dem ci benn appel benn benn benn jugement nga ne dañ la defar